Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Partout, Askanui.

effectivement boo gisee ni muy tiiree nga xam euh, amateur là, mais li ci li ci li ci xaw paradoxal mooy que. Mhm. Euh, police image bi dafa mel ni dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ en tout cas li leen intéressé nañ si wane. Mhm. Euh, pour jéem a wane li nga xamante ni moom force occulte yi boo xoolee image yi nag bu baax a baax exploité ko di nga gis ni moom mii di tiiree am problème sax pour tiiree. Mhm. am na benn jamono dafay dend ak ñi nga xamante ni ñooy alors je crois que Pape c'est ñu war a jëkk wax d'abord. Moi, en période de crise comme bii ñu nekk très souvent les wax journalistes, ah, période euh, exactement ñaari policiers exactement mm-hmm. période bi période manipulation mm-hmm. donc période de crise moi période bi nga xam journalistes ci ne journaliste yi gën vigilant même si dañu dañuy vigilant tout le temps mm-hmm. alors man j'ai dit euh, l'autre jour ci keppaar gi que ni li ma étonné mooy bi police defee conférence de presse am ba pare gisuma journaliste sénégalais yi jéem dem sama bopp laa koy commencé hein, parce que journaliste sénégalais là djema Je dem xol séquence yooyu nga xam dañ ko dagg wané ko ñu djema xol l'intégralité de la vidéo pour xam ba xam effectivement ba xam bo boolee séquence yu bari bari li la lay jox moy li nekk di sétane wala li police wax et lolu c'est ce que France 24 a fait tay je crois que ñu bari gis nañ ko alors li li li jar dire wax d'abord moy man dama xamul kan mo derrière la conférence de presse de la police hmm. est ce que policiers ñom ñoo décidé def conférence de presse pour wax loolu. wala dañ leen a sant ñu def conférence de presse ñu dem conférence de presse. mais bu ñu defee conférence de presse li tax may poser question bi mooy. ba day indi beneen question mooy ñoom kan la ñuy waxal. kan la ñuy waxal le message bi nga xam ne moom la police bëgg mu jàll kan la kan la ko jëmale. parce que Pape su fekkee ne message bi ci sénégalais yi la jëm. sénégalais yi ñu bari ci ñoom en tout cas ñuy dem ci réseaux sociaux yi. Mhm. gisoon nañ déjà ces images gisoon nañ lu ëpp fuuf séquence bi nga xam ne moom la police wane muy benn donc su fekkee ne le message était destiné au Sénégal je crois que c'est raté beneen bi mooy su fekkee ne c'est destiné à la consommation internationale pour wax ñi ne euh, euh, yeneen réew yi maanaam suñu partenaires ou wala bitim réew pour wax leen ne leen manifestation yi amoon Dakar du ay manifestation ñu bokk ci parti politique am lu leen naqari mais ay nit ñoo ci raxoon pour yàq mais tay ni France 24 def dafay wane ne message bobu jàllul parce que li tax message bi jàllul moy waa ñu wane sànq nga wax ne fay yor ben arme ñu melni da koy manipuler mais kuko gis xam minuko miinu ko en tout cas tak der bu yor arme mais kooku dafa am séquence xaw dañ la kay won so gisee da nga naan manifestant la wala ku rax ci manifestant yi mais est-ce que ku rax ci manifestant yor arme di nga jege nii ay takk der parce que ñaar ñii ay takk der lañ je crois que cela moom mën nañ cee mën nañ cee juboo mm-hmm. de la même manière ki nga xam ne moo sol euh, t-shirt bu rouge bi je ne sais pas si on peut la euh, voir cette image là voilà mm-hmm. kii nii xam nga bu ñu yemee fii rek wane ko nii ma mm-hmm. euh, su fekkee ne yow dëkkoo Sénégal xooloo xale yi Sénégal yi nga xam ne ñoo ne ci réseaux sociaux yi da nga nekk ci gouvernement beneen réew man nga ne ah dafa am manifestation ñu ci di di yor mais ce da nga dëkk Sénégal réseaux sociaux yi xool xale nga ñoo ci nekk sax ñi filmer parce que am na son séquence bi yamul mhm. séquence bi continuer ba nga gis mu mhm. c'est la même personne et le travail qu'on est en train de faire là sànq bi ñuy seetaan ma yow gis nañ ne tubaab yi nekk France 24 ils ont fait la même chose xam nga boko wone ni gis ki di sanni man nga ne ki xeer lay sanni nga gis ki yor fétal ci wétam nga né kon ñi manifestant yi la mm-hmm. mais soo demee tuuti mm-hmm. gis la même personne en tout cas sol le même t-shirt en tout cas la même tenue mm-hmm. yéegaat ci auto oto boo xam ne ay takk der ñoo ca nekk tu commences déjà à te poser des questions te sànq dama dégg tubaab bi nekk France 24 wax loo xam ne man xaw na ma jaaxal te ñun war nañ cee taxaw dafa wax ne laaj na ministère de l'intérieur mm-hmm. ko xamné mo fa yor sen carte waxul turum nak mais waxna ko xamné mo fa yor sen carte mm-hmm. koku wax ne de toute façon comme police moko wax deug la xam nga man nañoo ja comme police moo ko la mais loo loolu du li reelu li reelu moy leneen li nar ñew mm-hmm. parce que dafa né comme police moko wax tubaab bi moo wax naa du waxu Moustapha Diop encore une fois comme c'est la parole de la police donc c'est la vérité muy ben ñaarel ba mu wax ne waa waa daf ko wax ne ko tubaab bi daf ko wax ne ko kooku ngeen wane ne manifestant la wala dafa bokkoo ci manifestant yi sol euh, nu ñu koy waxee t-shirt rouge yor fetal mm-hmm. mais dañ ko gis mu wàcce ci auto bo xam ay police ñoo ci nekkoon tontu bi mom intéressé mm-hmm. mu ne ko non c'est pas pour la première fois c'est pas la première fois ñu gis ay nit ne ci manifestation sort des tenues yu niroog police mais Pape ça devient grave oui oui il faut retourner à la vidéo de, France 24 j'ai regardé ça à n'est c'est pas la première fois ñu gis ñuy nekk ci manifestation Nous ay tenues yoo xam dafa tenue police mais ça extrêmement grave parce que nous, suñu police bi ñu mhm. c'est de grands professionnels mhm. souvent personne du leen rax mhm. bu ñu leen bàyyi rek ñoom def seen

donc si fekkee fait dem na ba parce que là il faut regarder la vidéo waa ji ne ci euh, pas la première fois ci manifestation ñu gis ñoo non c'est pas je, je ne crois pas à ça mm. donc c'est intéressant que cette histoire là mu bañ a Ce qui mm. li ma ci et là man je fais confiance aux policiers qu'ils ils vont faire leur travail xam leur travail c'est lan C'est qu'ils nga qu'ils sont dañoo ne biir mm. ñu communication qui ay manifestants lañ wala ñu raxoon manifestant ah non il faut aller au-delà pourquoi ñu nek ni jege ak policiers pour identifier leen japp leen jaar leen tueur parce que apparemment ñi bokkuñ ci police mhm. la question simple maintenant ah, qu'on doit se poser image bii nii euh, dellu tuuti euh, dellu tuuti euh, vieux image bi sax mom mo xawa gëna doy waar parce que fi dinañ en tout cas police. oui euh, euh, di di di wax ak si auto euh, bu ñu nekk. exact ñu du eh, police exact exact du hmm. tout du tout du tout du tout du tout. et policiers ne ça ils ne font pas ça. Hmm. maintenant pour l'image même de la police c'est liguey moy ba hmm. ñu xam ñan mais ci mais mais il faut ñu xam lan moo tax ñu nekk ak leen leen oui c'est extrêmement important bul fekkee faites leen yónni ñu xam kan moo leen yónni ak lan moo tax ñu nekk là je crois pour l'image de la police parce que ce que nous voyons. Mhm. sur les médias internationaux. rafetul. oui oui tey jii tubaab boobu li mu def. jàkkaarloog suñu police bi. naan lii lañ wax li lañ wax li amu ci li amu ci li amna ci li amu ci mhm. lolu pour institution bi police nekk suñu rew ak fiñ ko tek ñun mhm. rafetu ci donc man pour man c'est à eux de faire leur travail et manger j'ai une totale Ben ben, question bi nga xamante aussi euh, mhm. nit ñi dañ koy laajte mooy mhm. euh, comment se fait-il koo xamante dañ ko présenté comme manifestant mhm. euh, bu bokk ci force occulte yi ba noppi di tirer ñi nga xamante manifestant est-ce que l'on c'est cohérent wa ko je crois que démb en parler de ça que ni bu fekkoon tey dañ ne dafa am ay force occulte yo xam dañoo rax ci biir manifestant ni ma jàkkaarloog yow la ñuy jàkkaarloog police bien sûr kon bu boobaa na ma yàlla baal dañ naan force occulte yooyu ñoo faat policier sàngam policier sàngam policier sàngam yàlla bu loolu am ci réew mi yàlla bu ma sa am mais lu ñu gis mooy policier bi nga xam ne sax gaañ nañ ko ci fii ci parcelle les gens ont vu les images même xale yi ko gaañ ay xeer lañ ko dóor yaa ngi dégg ñu ko leneen alors ñii di tiire nekk côté bi police nekk mi ngi mel ne yow nga ñëw taxaw sama wet di tiire donc yow doo sama adversaire wala déet bo doon sama adversaire da ngay jàkkaarloog man dima tirer mais do ñëw taxaw ak man dima tirer motax ma yakax ne y a un travail d'identification ni nga ko waxee mais waru yam il faut ñu japp len mais waru yam ci japp il faut ñu xam ñan ñoo leen yónni mais du yam ci ñan ñoo leen yónni il faut ñu xam également pourquoi ñu nekk à côté des policiers mhm. parce que dafa am ben ministre bu wax né ñom seen parti wa ah, APR dañoo yag am ño xamné ne seen ay militants lañ buñ vous avez ci manifestation aider et tout mais aider sécurité parti ne veut pas dire ça parce que parti politique a une sécurité ah, souvent c'est des mhm. mais du ne pas de ci ah non non non mais nous également di parce que takk Sénégal

kër diw kër diw kër diw kër diw kër yooyu du ay kër yuy dox kër yooyu déplacé wuñu kër yooyu dafa am fu ñu nekk yam fa man doon naa comprendre ñu ne kër ministre sangam de wal Matar prenons l'exemple de Matar Ba taal nañu ay oto buntu këram mm-hmm. ñu ne Matar Ba de am na ñu mu jël mm-hmm. ña nga taxaw buntu këram mm-hmm. di ko garder assurer sécurité assurer sécurité am ñooñu fa bouger parce que leen tax a jóg mooy aar kër gi mais ñii aaruñu kër ñi ils sont sur comme si on peut appeler ça comme ça sax di avancer. exactement ils sont dans dans sur le théâtre des opérations ñi ngi déplacé wu yor ay yor ay yor ay yor ay armes ni je ne pense pas que ni ñooy aar kër. Mm-hmm. et beneen image boo xam ne waroon intéresser la police. Mm-hmm. mooy image boobu ñuy wane ay pick-up yu bëree bëree bëree bëri rang. ay nit nekk ci yor ay yor ay armes di di déplacer ou di dem mais yo ci ci tu moment où manifestation bu mett bu mel non ça pose vraiment problème. Mm-hmm. te man li ma ci gën a li su ne chagrin li ma ci gën a. vidéo bi bu nekkee mën nga ko dugal mooy troisième vidéo boobu aussi euh, assez explicite. Euh, di wane même personne bi euh, mu am benn proximité voilà. bien la eh, eh, ak kenn koo xam ne dafa sol tenue. tenue policier comme les nee comme gars yi dañuy sol. tenue policier léegi laa ko dégg ah, ci France 24. et puis li ci doy waar moi moo di ne am vidéo bu ma déglu ben way di ci wax am ñaar ño xam ne yor arme. mu ah, naan ñu xool euh, via euh, voilà merci. exactement euh, gis nga ñii ne ci pick bi luñu ay luñu ay takk def. parce que ki amna na ku si mujj yëg bant lay xaw a yet. te waa police moko identifier comme personne bo xamanteni ñom en tout cas ñu liñ ñu koy présenté moy ku bok ci force occulte. ki tay jii bu nek force occulte bok ki ni nii sol tenue policier dina xaw a jaaxal. gis nako ko gis na mhm. wax nañu am nañ wax sax. arrière vidéo tuuti nga teg ko di nga gis ni am na ñu ben échange bi am ci sen diggante ñom ñaar alors gis nga par exemple. oui dem ci pick-up bi. Euh, fekk pick-up bi taxaw ñu euh, si ngay ki nga dafa sol policier wax ak ñaari cadeau, euh, ba ñu continuer. en tout cas pour l'image de l'image même du Sénégal hein. pour l'image du Sénégal ça pose un sérieux problème. Mm-hmm. encore plus que man lool moma ci xawa metti police. Mm-hmm. dañu am fierté ci suñu ci gendarmerie. Mm-hmm. Euh, boo ci xamee boo ci xamee nit di échanger wu da ngay xam ne manifestation yi def nii nit ñi mën nañoo bari mën na am débordement parfois mu am bavure day ay bavure ñu gaañ ay nit mais bu ñu leen bàyyee ak sénégalais rek il faut leur travail mais ñii ci rax nii hmm. crois que ne serait-ce que pour l'avenir d'autant plus que avant le verdict il y a déclaration des responsables du parti au pouvoir de di verdict bi le verdict, tout cela réuni fait les sénégalais forcément ils ont des questions à se poser plaisir recevoir euh, plateau ci wal Walfadjri waxtaan nañ ci actualité sénégalaise bi ñu mujjee nag mooy image yi nga xamante ni euh, ñu ngi koy gis mi ngi def le tour du monde euh, li ci djublu nak pour leeral la rek parce que nu ko nasaraan si mënee def ñun aussi war nañu ko mëna def parce que ñu présenter image aussi war nañu mëna euh, analyser image bobu xol fan la dëgg bi fété di leen jaajëfal bu baax a baax mais lat lool dañuy jox Moustapha Diop mu wax kàddoom bu mujj Pape maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ça a été un plaisir de venir def waxtaan wi ak yow euh, comme nous ma ko waxee sànq une ci opinion libre wax librement une opinion mm-hmm. euh, c'est important parce que réew boo ci bokkee mm-hmm. euh, da ngay am droit li mm-hmm. nga ciy xalaat su la yàlla nattoo nga am micro parce que jàpp naa ne nattu la man cee wax nga ciy wax sa xalaat di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew bi c'est aussi le travail que tu fais ñuy am ci fierté trop en tout cas moi je dis très souvent que je suis très fier de travailler avec toi bari na ñoo xam ne dañ lay seetaan ci télé construire le comme ni ñu construire le ñëpp ben image boo xam je le dis souvent bu ngeen bu ngeen pratiqué woon un peu xam il n'a rien à voir avec l'image qu'on construit de lui mais à de doxee noonu maa ngi lay sant di la gërëm baax et ce sera également un plaisir autant de fois que tu le voudras ñu ñëw fii di def waxtaan yu baax yu mel nii incha allah. am bu baax baax plaisir le vraiment euh, donc recevoir euh, honneur aussi donc recevoir ci suñuy studio euh, ici ci jotaayu UPMD di leen jox rendez-vous très prochainement ci benen euh, jotay mais laata loolu aussi dañuy jajeufal ñi ne ci walu technique bi euh, Mamour euh, ak ki nga xamante mo Ibrahima Diop ak Vieux Sagna ñoo nekkoon ci walu ba donc di leen jajeufal bu baax baax di leen wax ak ngeen di wéy di partager suñu contenu mais aussi di abonné wu bu baax a baax ñu ngi leen jaajëfal. libre. Opinion libre. Opinion libre. La voix du peuple. Batou Askanui.